الماء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 wal islaam wal ixsaan wal iraada asalaamaaleykum wa taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentem boobu alayhi wa sallam di leen ziyaare di leen ndokkeel di ñaan ngeen baal ñu xaq ñu ngi leen di baal xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy bakkaar te nungul ñu suñuy jaamu yàlla ñuy nuyu mbokk yi rek ci liggéey bu sell bi nga xam ne bii moom la ñu yàlla boole te mu doon tawféex joo xam ne ji defal nañu ko nu di ci jéem a yokk suñu jaamu yàlla ak suñu liggéeyal islaam mu doon lu am solo bu ko defee néew boobu ak ziar boobu rek ñoo ngi koy nuyu mbokk yépp ñu nu bokkal liggéey bi muy góor ñi ak jigéen ñi boroom xam-xam yi ak euh, ñi nga xam ne ñi dañ cee nekk di xalaat xalaat yu am solo yu rafet yu baax ak it ñi nga xam ne ñi ñooy boroom xam yi di ci yëngu-yëngu bu ama am solo di jël néew boobu rek di ko jox suñu kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolli ko jàppale li ko dimbali may ko kàttan ak wér ak fekk ak dala xiwal ba lim bëgg liggéeyal lislaam rek lépp yàlla may ko ci lu ko njortam te nu ànd ko ak moom te ñu di ko beral ak cant bu baax a baax ndax liggéey bi nga xam ne bii moo loonu seq ñun ñëpp ñu bokk ko te muy liggéeyal islaam maanaam ñëw na ci suñu wet dañu ci jàppale dañu ci dimbali diñu yokkal waar wi nga xam ne bii moom lañ ci aman mu la koy yokkal ci anam yu am am solo yu yu yu baax a baax ci nun yoo xam ni yokkal na nañu ko ci liggéey bi yoo xam ni wax dëgg yàlla dimbal nañu ca yàlla defal ñu tawfeex jaarale ko ci moom ndax doon doonte noo ngi doon góorgóorlu itam di jéem a liggéeyal sëriñ bi moom dafa ñëw loolu ñu ci doon jéem a nab dabi maanaam mu yokkal nu ko lu baree bare bari kon Mbàkke ñoo ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ko ñaana rek yàlla gën koo jàppale ba yéen a ji mu am daal eh, yàlla na ko yàlla defal lu ko njortam bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dañu ànd ko ak moom su ko defee liggéey bi nga xam ne bii moom lañu ñu seq itam eh, ñuy ziare jëriñ ji bu baax a baax muy Modou Ngom ñing ndax yàlla bi mu dogalee tamit mu nekk yitteem bëgg ko. mu nekk ci guddeeg bëccëg di ca yëngatu di ca wax di ca dox di ca def xam ne liggéeyal islaam la moom itam mu xam ne lii kat lu baax la tawfiix la joo xam ne ji jullit bu nekk war na caa mën a jariñu mu daal di koy yaatal moom itamit wàll googu dañu cee yokkal sunu gën góor góorlu ci liggéeyal islaam bu baax a baax moom itam ñu ngi koy sant ci loolu di ko ci gërëm itam di ko ñaanal yàlla moom itam lépp loo xam ne lii maanaam liggéey bi daal bëgg na mu àgg fa bëgg na mu mel na yal na ko ci yàlla defal ko wel njortam te nu ànd ko fekkee ko moom jariñoo ko continuer ci liggéey bi ñun ñëpp bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama maanaam di ndokkeel mbokki taalibe yi ci yàlla def nag tawfiix ñu bokk ci ñoom ñëpp muy comme ni ma ko wax rek kilifa yi nekk ci biir jataa bi ak boroom xam-xam yi ak soxna yi nga xam ne ñoom itam yàlla na leen defal tawfeex ñu ne ci biir liggéey bi nañu xam ne yàlla dañoo defal tawfeex ju rëy rëy joo xam ne ji war nañ koo bàyyi xel ba di ci gën a def suñu yitte suba ñu xëyee guddi ak bëccëg te xam ne tawfeex la joo xam ne ji yàlla moo nu ko defal. liggéey bi dafa am solo lool baax lool ci ñun dinu day yokkal suñuy tawfeex ndax. liggéeyal islaam moom mooy doon sunu njëriñal àdduna ak àllaaxira mooy mën a jàppandal yombal suñuy mbir àdduna ak àllaaxira kon lépp loo xam ne lii mën nañ ko ci yëngatu rek ah, loola doyut ndax ah, bu ñuy xool àdduna gi ñu nekk ah, dañ fee jaar rek di jàll te dañuy dem ca kër ak dëgg ga te kër ak dëgg googee nu jëm nag fii lañ koy waajale ci man faa nekk nekkin woo xam ne bi jàmm lay doon ak xiwal ak i leer yoo xam ne yi saa su ne day gën a yokku ci ndimbalal yàlla ak yërmandeem ak ngëneelam yoon woowu nag maanaam eh, wala boog dëkk boobu la ca jëm mooy lislaam te lislaam mooy lépp loo xam ne lii lu baax la lu neex yàlla la moo xam ay jëf la moo xam ay wax la moo xam ay béréb la te it nag jëm kër googa muy àllaaxira te yaari kër a fa nekk muy kër ak teraanga ga de àjjana waaye geneen kër nekk fa muy kër ak safaan ga te bu ci nekk dafa aw am yoon aw am aw yoon wu ca jëm kon bu nu yàlla dimbalee euh, tànn diina ji nga xam ne ji moo ko gënal muy islaam tànn yonente bi nga xam ne bii moo ko gënal ñépp nga xam ne lu mu bind ne moo tax mu boole noog moom mu won ñu yaari yoon yooyu ne nu aw leen ci yoon wii su ko defee moo jëm ca kër ak teraanga ga sunu yàlla defalee tawféex nu jéem a góor di nab nab yi di aw ci yoon wooweekat loolu war nañ ko sant yàlla bu baax te liggéey bu mel nii day bokk ci li nga xam ne lii dina nu gën a jàppandal bu baax a baax nu gën a mën a aw ci yoon woowee gën caa dëgër ba sax ca ba doxantu ba àgg ca kër ak teraangoo ci kàttan ak yàlla subhaanahu wa taala ak yërmandeem ak ngëneelam koo xam ne gii da koy defal bépp jaamam boo xam ne bi sopp na ko bëgg na ko nar na ko teral teraanga jooju ak nga xam ne ji moo nekk ca kër googee su ko defee lii nu def di ko liggéey la xaadimu rasul te muy mbooloo moo xam ne mi ay jullit lañu ay taalibe lañu di jéem a jàng alxuraanul karim di jàng xasida yi waaye tamit di def ay jataay yoo xam ne yi borom xam-xam yu seen xam-xam leer naññ dañu am ci yéene man koo leeral yéene ko jaami yàlla yi ñu dajaloo di liggéey liggéey bu mel nii kon loolu itam lu tawfiix la lu baax la lu am solo la loo xam ne lii yàlla na yàlla gën a dimbali bu baax a baax daal saxal lu ci te lépp luñ ci yëngutu rek mu dëppoog ngërëmam waaye tamit mel na nga xam ne nii noonu la ko bëggee te feyal fey nu ko defal ñu ko ab yool ak i xewal yoo xam ne yii dañuy nekk suñu jariñ fii ci àdduna ak àllaaxira gi nga xam ne bii fa lañ jëm rawatina su ko defee dëkk boobee nu jëm ña nga xam ne ñi yàlla dafa dogal ñu jiituñu fa te mooy mbokk yi nga xam ne ñoo nu jëkk faatu ñoom kat bu nuy jàng njàngatam xaadimu rasul yee yee nañ ñu yee koo xam ne gii war na noo xam ne du dëkk àdduna gii kat feeg nu fii fiy nekkandi lu ama am solo la ndax xaadimu rasul da ne ñoo ñi nga xam ne ñi kat faatu nañu ba nekk barsax la ñu bëgg gëna na bëgg tey jii mooy yàlla daal di leen dekkalaat indiwaat leen fii ci àdduna ba ñu jëf fi jëf joo xam ne jii lu mu néew néew lu waxtu wa gàtt gàtt rek ñu def fi lu neex yàlla loo xam ne lii buñ leen delloowaatee ci seen bàmmeel ya loolee da leen di jariñ lool kon ñu xam ne euh, loolu euh, tawfeex ju rëy rëy la war a doon it ab soñit ñun ñu war koy jàngat bu baax a baax a baax jéem kër googu moom ku fa dem ab liggéey amatu fa fii ci àdduna rek la ñu mën a liggéey kon suñu waxtu yi ñu fi desati war na nanoo góorgóorlu ci lépp loo xam ne li lu ñu yombal dinu baaxalal nekk nga foofee moom la nu jéem di góor góorlu ci loola te yu mel nii mbooloo yu mel nii wax dëgg dañuy jàppandal ci lool ci lu mel noonu lool ndax boo ci bokkee nekk ci di ci yëngutu wax dëgg yàlla di ko bàyyi xel di nga ci amee ay waxtu yoo xam ne wax dëgg yàlla feeg yaa ngi ciy nekk ju di la defal xéwal googu nga xam ne gi moom la yàlla fee ci bépp jëf bu baax boo xam ne bii euh, moom la digëb jaamam kon Modou Ngom ñoo ngi koy ndokkeel lu baax di ko ñaanal te xam ne def na lu am am solo ndax yonent bi doon képp koo xam ne kii xàll nga yoon bu baax yàlla dalay defal tawfiq di la fay ca lu yoon woowee nga xàll mu doon lu baax nga di ko def muy liggéeyal islaam yàlla dala cay fay waaye itam képp koo xam ne kii ànd nag yow wala mu di la ca roy dégg ko di la ca roy fekk na yow yaa ko sos da cay am yool waaye tamit euh, moom moomee jëf jëm cay def dañ la cay defal ab yool yow mi nga xam ne mi yaa xàll yoon wow kon di tawfiix ju rëy rëy la yal nañ ci yàlla doole jàppale bu baax a baax fi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax nag tey tuub tey jéggalu bu baax a baax rek xam ne wax dëgg yàlla liggéey bii nu yàlla boole dañ ci am kontante lool bég ci lool rafetlu ko lool bëgg ko lool ndax gis nañ ci suñu bopp ci ne li nga xam ne lii moom loolu ñu war a jéem a góorgóorlu ci lislaam daal wax dëgg yàlla euh, liggéey bii maanaam yokkal nañu ko bu baax a baax a baax ñu ci gis suñu bopp bu baax a baax ci wàll woowu kon bu ko defee tey moom euh, xam na ñu ngi jégalu bu baax a baax fan yi moom climat bi xam naa ni mu demee wàllu kàddu gi yow moom mel na ne xaw naa jagadi la waaye nag ñoo ngi koy tuub di ko jégalu di ñaan mbokk yi rek maanaam ñu jéggal ñu te xam ne euh, xaw a mën a xaw a ngelaw li daal moo ñu xaw a jàpp daal ba xañ na kàddu gi ni mu mën a naa leere dëgg-dëgg day des lu baree bari loolu itam ñoo ngi koy jégalu bu baax a baax su ko defee laaj bi ñu fi jëkk am tey mi ngi jóge ci suñu mag ji suñu kilifa sëriñ Ndiir Touba Mbuso moom ñoo ngi koy sant bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax moom itam taxawaay bi mu taxaw ci liggéey bi ku ne xam ne ko mu yitteel ko bëgg lu baax diñ ci soññ saa su nekk nga xam ne moom saa bu nu déggee kàddoom wala rek sunu xel dem ci moom maanaam dañuy xeebaat suñu bopp ci fi nu tollu waaw di mu doon suñu royu baay boo xam ne bii dañ koy roy bu baax a baax bëgg ko lool ci suñu xol naw nawloo ko lool tamit mu doon suñ bokk ci wàll yépp bu dee ci wàllu askan bu dee ci wàllu diine islam ji ñu seq bu dee ci wàllu taalibe la kon bu ko defee sëñ bii dafay laaj ne dafay seetlu ñaari nodd yoo xam ne yii day gis ne ñu ngi koy nodd muy dane daa am ñoo xam ne ñii suñuy nodd dañuy wax allahu akbar am na ñoo xam ne ñii ñaari yoon la ñuy wax allahu akbar waaye am na ñoo xam ne sax ñeenti yoon la ñuy wax allahu akbar daal di continuer rek daal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba noddu ko ji yàq muy genn nodd gi geneen gi ci des am na ñoo xam ne ñi dañuy wax allahu akbar ñaari yoon wax ko ca kaw bu mu mu kowee waaye ñu wax ñaari baati seere yi maanaam wax ko ndànk maanaam wàcce seen kàddu wax ko ñaari yoon baamu ko daal di yëkkatiwaat seen kàddu ca kaw waxaat ñaari baati seere yooyu ñaari yoon doog a continuer ba euh, noddukat yi jeex waaw bu ko defee ñaari noddu yëpp wax dëgg yàlla liñ ci gëstu ci fiqh ak fañ cay delluwaat di ko xool ci boroom xam-xam yi mooy loolu moom seen ak wuute ci biir rek ci fasin euh, noonu ñu koy defee defin moom ñu koy def waaye noddu yëpp a baax noddu yëpp a jàll noddu yëpp lañ euh, na ndax boo koy xool xañ na ci niñ koy waxee ci defin wi la waaye maanaam lañ ci jublu muy baat yañ ci tudd yépp moom benn la su ko defee nodd gi ñu gën a taamu nag ñu nga xam ne buñ demee ci ngërëm imam malik euh, moom la ñuy moom la wax ne nii la ñuy nodde mooy nga xam ne gi da ngay wax ñaari yoon allahu bar ñaari baati seere yi nga wàcc sa kàddu tuuti ba ñi làng ak yow di la dégg da nga bañ ko yalu nga wax ko ñaari yoon daal di yëkkatiwaat sa kàddu ca kaw wax ko waxaan ñaari baati seere yi baamu ko ñaari ñaari yoon ci kàddu goo xam ne gii gu yëkkatiku la gu kaw lay doon nga doog a daal di àggale euh, noddu su ko defee euh, bu ko defee ne ne euh, noddu gi nga xam ne gii dañuy baamu allahu akbar ñaari yoon continuer dem wala ñu wax ko ñeenti yoon continuer ca baari seere bañ koo tàqale na ne ñetti ñi moom ñoo ci d'accord ne noonu la ñuy nodde waaye bu ko defee beneen bi ci des muy bii ma doon mujj wax nii mooy bi nga xam ne bi moom la maam imam Malik teg ne noonu la ñuy nodde kon daan noddu gu jëkk gee muy baamu allahu akbar ya ñaari yoon continuer wala ñu wax ko ñeenti yoon continuer ne ne borom ñetti ngir yépp d'accord na ci muy abu xanifa shafii ak ahmad ibn hanbal ba mu des imam malik kon imam malik moo teg beneen xeetu nodd bi nga xam ne bii moom la ñu wax ne euh, nii la ñu war a nodde kon bu dee ci wàllu noddu gi daal dafay demee ci wàllu li nga xam ne lii moom lañ gëstu ci fiqh bi beneen laajam bi ci topp sëriñ ndiir dafay laaj adamu wujudil basmalati fi tawbati maanaam biir alquran ji dafa am loo xam ne dañ ko limale ne aw saar la te tàmbaliwut bismillahi rahmaani rahim te wenn saar woowu dong moo ko muy saar yi ñuy wax tawbatu wala baraatu lu tax daal e, tàmbalewu ñu ko bismillahi rahmaani rahim te yeneen saar yi nga xam ne moo ne ci biir alxuraan yëpp bu ci nekk danga nga tàmbalee e, basmala loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute lool wax ci ay wax yu baree bari yoo xam ne yii ah, doy na waar yéeme na daal waaye dañuy wax ne bokk na ci li nga xam ne lii boroom xam-xam yi wax nañ ne maanaam moo tax baraatu wala at tawbatu tàmbalewut bismillahi rahmaani rahim mooy lii ma bëgg a wax ni benn la ca muy xaala rasulullahi sallallahu alayhi utiitu makaana tawraati assaba wa makaana zabuur almiina wa makaana alinjiil almathaniya wa fuddiltu بالمفصل فالحديث يبين أن هذه الأقسام ليست مستحدثة وأن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne yàlla damaa defal loo xam ne lii defal ma ko ci alxuraan mooy daanaka booy xool rek dafa jël mbooti maanaam secret euh, ñetti téere yi nga xam ne moo ko fi jiitu woon maanaam moom muy doog ñëw maanaam alxuraan di doog ñëw daanaka mën nañ ne loola yépp secret ba ca nekkan dañu ko dugal ci biir alxuraan ba pare nag def ci alxuraan loo xam ne lii nekkutan ci yooyu mu bare mu bari lool yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu xoolee tawraat te mooy téeréeb seyduna Muusa alayhi salaam ne ne moom dafa nekkan juróom-ñaari saar ko mën a waxee rek ndax ay saar la ñu mën a wax ngir ñu xam ne téere ba noonu la demee ne dafa nekk juróom saar yoo xam ni dafa gudd lool ne ne juróom-ñaari saar yooyu nekk maanaam ne doonoon tawraat ne ne béréb boobee yàlla jox na ma ko mu nekk ci biir alxuraan waaye itam nee na muy téere bi nga xam ne bi mooy téereb Seydina Daawuda moom ne ne nas saar doon demee maanaam da nekk ay téeméeri saar wala lu ëpp tuuti téeméer wala lu ko manqué tuuti te ne ne mm, secret booba itam yàlla defal na ma ko ci alxuraanul karim waaye tamit ne na bu dee ni la muy téere bi nga xam ne bi mooy Seydina Isa moom la yoroon ne ne jox na ma secret Euh, nañ ko tërale woon muy aaya da doon ma téeméer maanaam du ma téeméer maanaam du àgg ci téeméer da koy yées daal waaye na ne dem la ca des muy defal nañ ma ci alxuraan leneen loo xam ne lii dañ ma ko jagale ak sama xeer yi muy yàlla dama defal ci alxuraan ay saar yu bare bare yoo xam ne yii maanaam dañoo gàtt maanaam ñu di leen tuddee almufassal mooy yi nga xam ne yii dañuy taqalikoo lu bare bari nga xam ne ay bismillahi rahmaani rahim yu bari dafa jaar ca diggante ba su ko defee ne na xadis bi nga xam ne bii moom la yonente bi wax buñ ko jàngatee te am luñ ci déggee day wane ne dañuy leeral ne nii ñu séddale alxuraan nii ñu tërale alxuraan nekkut loo xam ne lii lu ñu sos la waaye dafa nekk loo xam ne lii ñu ngi ko jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo ko tege noonu su ko defee li may bëgg a wax fii ci ñi ne leen lii bokk na ci li tax at tawbatu amul bismillahi rahmaani rahim moom lay bëgg a wax nii dane assabu attiwaalu albaqaratu alu imran an nisaau al maidatu al anam al araf al-anfaal wa tawbatu xam nga gis nga saar yi ma lim nii boo koy xool dafay taxaw palaas ab juróom-ñett lañu juróom-ñett lañu waaye danoon juróom-ñaar yële nga xam ne moom lañ ma defalan ca euh, tawraat muy yu gudd ya mooy ñii mooy suratul baqarati suratu ala imran suratu nisa suratul maidati suratul anam suratul laaraaf suratul anfal daa di wax ne wat tawbatu xam nga dana juróom-ñaar la yu guddi yi ba pare te booy xool fii dafa lim juróom-ñett ñoo fi taxaw waaye ni ko fuqaha ñenn ci fuqaha yi ni ñu ko waxe mooy maanaam lan faal ak tawbatu waaw gii fi jaar ni len da ngay boole ñoom ñaar mu nekk wenn saar bu ko defee ngay doog a mën a am juróom-ñaari saar yi ndax boo ne al baqaratu al al imran an nisa al maida al anam al araaf al anfaal mooy juróom-ñaari kon nga boole ci xaajab ak tawbatu maanaam mooy ànd ak lanfaal kon mu nekk juróom-ñaar am na ñoo xam ne daal nee nañu fii lañ sukkandiku ne looloo tax lanfaal ak ak tawbatu wenn saar la moo tax defuñu bismillahi rahmaani rahim ca diggante ba su ko defee ne li tax mu nekk li ne li annahum kaanu yaxudduuna al anfaala wa tawbata suuratan waahidatan nee na ñoom dañoo jàppan ne suuratul anfaal ak suura tawbat daal wenn saar la woo xam ne bii euh, bismillahi warta jaar ci seen diggante wa qad zakara al ulamaau akthara min ra'yin li adami wujudi al fi tawbati minha annaha nazalat li tunhiya al ahda allazi bayna al muslimina wal mushrikiina fa baasallahu fa baasalla fa baasa nabiyu aliya bna abi taalibin ilal mushrikiina li yatluwaha alayhim fa qara'aha bi duunil basmalati ne ne eh, geneen wàll gi itam ne ne boroom xam-xam yi eh, wax nañ ci ñàkk am ak bismillahi rahmaani rahim ci suurat tawbati ne wax nañ ci ay xalaat yu bare bare bare xalaat yoo ne ne bokk na ca ne ne tawbatu mii bi yàlla di wàcce aaye ne ne aaye la yoo xam ne yii maanaam kóllëre gi nga xam ne gi moo doxoon diggante jullit ñi ak yéefar yi maanaam yooyu bi mu wàcc maanaam daa bëgg na jeexal kóllëre googu maanaam daa bëgg na dindi kóllëre googu nga xam ne gii moo doxoon diggante jullit ñi ak yéefar yi ba jullit ñi dëgg-dëgg nit ñi war na mën a jëfandikoo ngir lislaam dox maanaam mënuñu koon a def looloo tax ne ne bokk na ci li tax baraatu mi wàcc nga xam ne daa dindi kóllëre googu ne bi loolu amee ne ne Seydina Muhammad dafa yónni Seydina Ali karamallahu wajhahu mu yónni ko ca yéefar ya ngir aaye tawbat yooyu bi mu wàccee Seydina Ali dem jàngal leen ko ne ne bi Seydina Ali demee da leen ko jàngal te maanaam waxut bismillahi rahmaani rahim te ne ne wa kaana min aadati larabi qadiman isa raxabu bi inhaai ahdin maa xawmin an tursila kitaaban laa yaktubu fi bidayatihi basmalatan te ne ne noonu Seydina Ali dem jàng aaye tawbat yooyu te waxut bismillahi rahmaani rahim moom bi ko jàngee ci kanam yéefari rek xam nañu maanaam li ci Seydina Ali jublu mooy lii muy wax tey jiikat mooy kóllëre yi nga xam ne gii dafa doxoon seen diggante ñoom yéefar yi ak jurit daal léegi day jeex seen diggante ndax ne ne loolu moom aadala joo xam ne ji ñoom arab yi tàmman nañ ko miin ko ba xam ko xam boo xam ne bii fu ñu leen massa di bindeeb leetar rek maanaam buñ ci defut bismillahi rahmaani rahim dañoo xam ne leetar bi maanaam doxut jàmm leetar la boo xam ne bii day jeexal kóllëre bi nga xam ne gii moo dox diggante ak ña nga xam ne ñii ñoom lañ koy bind kon na ne loolu itam bokk na ci li nga xam ne ni sabab na euh, ak tawbatu euh, defuñu ci bismillahi rahmaani rahim ndax ñoom bu ñu masaa am kóllëre diggante seen diggante ak ñeneen suñ ko bëggee dindi rek bu ñuy bind ab leetar maanaam duñ ca def bismillahi rahmaani rahim te ne ne baraatu bi ñu demee di leen ko jàngal noonu la ay wàcc Seydina Ali dem jàng ko te amut bismillahi rahmaani rahim ñu xam ne kon kóllëre gi nga xam ne gii moo dox seen diggante ak jullit ñi daal kon léegi jeex na bu ko defee waa nim ne abbasin xaala saaltu ali ibn abi taalibin lima tukkutab fii baraatu al basmalatu xaala li an al basmalata amaanun wa baraata nazalat bi sayfi ba tey ñu jële ci ibnu abbas mu doon koo xam ne kuy nettali lu baree bari ci xadiis yonente bi la ne Euh, dama laaj Ali ibn Abi Talib ne ko waaw lu tax bisimilah rahmaani rahim binduñu ko binduñu ca euh, lu tax baraatu muy attawbatu binduñu ca bisimilah rahmaani rahim ne ne sirna li da ko tontu ne ko euh, basmala kat maanaam jàmm lay dox maanaam fu ñu ko gis rek dañu xam ne loolu jàmm la te ne ne aay yi nga xam ne moo wàcc ci tawbatu mu noon baraatu ne ne dafa wàcc ngir daganal jullit yi. jëfandikoo jaasi ci yéefari ba ba lislaam dox li nga xam ne nii noonu la war a doxee kon looloo tax maanaam mu ne ko aay yooyu defuñu ci bismillahi rahmaani rahim wa suila usman an zalika fa qaala kaanat anfaalu min awaili ma nazala bil madinati wa baraatu min axir qurani nuzulan wa kaanat qissatuhuma shabihatan fa zanantu annaha minha ne ne bi ñu laaj laajee Seydina Ousmane itam radiyallahu anhu nga xam ne Seydina Ousmane ci jamonoy xilaafam maanaam moo dajale alxuraan def ko benn ne ne bi ñu ko laajee ne ko waaw lu tax lan fal nii ngi ak tawbaatu ni ngeen ko bindee nii seen diggante amul bismillahi rahmaani rahim mu ne lan faal day bi ñu ñëwee Madina dafa bokk ci aay yi nga xam ni wala saar yi nga xam ni moo jëkk a wàcc waaye baraat itam dafa bokk ci li nga xam ne lii mooy li mujj wàcc ci alquran maanaam nga xam ne kon seen diggante booy xool lan faal ak tawbatu ne ne sore nañu lool ci ni ñu wàccee ne ne nag ne bi ma xoolee al ak at tawbatu muy baraatu ne li ñuy wax dafa niroo lool lool nga xam ne boo ko xool daanaka benn la ne ma yaakaar ne nag kon ñoom ñaar daal benn lañu maanaam ma yaakaar ne aay yi nga xam ni mooy tawbatu ci lan faal la bokk Seydina Ousmane Konté je tontom ba ne ko daal euh, noonu ñu niroo ñoom ñaar lu ñuy wax moo taxoon ma yaakaar ne ñoom ñaar benn lañu ne ne te ne ne bi nekk na fi ba jóge fi te leeraluñu ndax lan faal ak baraatu ñoo bokk wala bokkuñu te it amul jotuñu ko caa laaj ba ma def ca genn leer ba wàcceb liggéey ne looloo tax Seydina Ousmane mooy wax ne ne bi may dajale alxuraan ji maanaam ma langale ñoom ñaar te maanaam binduma bismillahi rahmaani rahim jaarale ko ci seen diggante ndax ne ne moom Seydina Ousmane ne ne bi may dajale alxuraan ji awma benn tegtal bu leer boo xam ne bii ñoom ñaar benn saar lañu wala ñaari saar la loolu tax ma bàyyi ko noonu bind ko euh, bañ a def la ci tàmbaleeb at tawbatu kon daal xam naa euh, mbir moomu euh, lu doy waar la lu yéeme la ndax bu ñu koy xool muy at tawbatu amut bismillahi rahmaani te booy xool saari alxuraan yi ah, yi ñu boole dañ ne téeméeri saar la ak fukk ak ñeent su ko defee booy xool foofu mu ne téeméeri saar yi ak fukk ak ñeent mooy kaamil bi waaye tamit bu ñuy xool bismillahi rahmaani rahim jooju donte tawbatu bokk na ci lima téeméeri saare fukk ak ñeent waaye amul bismillahi rahmaani rahim waaye terewut booy xool kaamil bi téeméeri bismillahi rahmaani rahim moo ci nekk ak fukk ak ñeent téeméeri bismillahi rahmaani rahim mi ngi ci biir alxuraan ji ak fukk ak ñeent te baraatu muy tawbatu amut bismillahi rahmaani rahim waaye terewut booy xool am na bismillahi rahmaani rahim boo xam ne bii ci weneen saar lañ ko def muy sóoratu nam li soo koy jàng di nga fekk bismillahi rahmaani rahim ca biir kon dal foofu bu ñuy xool nañu xam ne kon wàllu maanaam am na wàllu zahir ci mooy ba at tawbatu ñu koy xool nii amut bismillahi rahmaani rahim ba tax ak wóote gu baree bare am ci waaye tamit am na wàllu baatin woo xam ne bi mi ngi ci biir ndax dañoo lim ne saari alxuraan yi téeméer la ak fukk ak ñeent te euh, am na ci saar woo xam ne wii andu ak bismillahi rahmaani rahim te booy xool itam bismillahi rahmaani rahim ci alxuraan yi téeméer la ak fukk ñeent dara manqué ci waaye àndut ak saar waaye dañ ko dugal ci weneen saar woo xam ne ma nga ca biiram nga xam ne saar woo tàmbale na bismillahi rahmaani rahim boo demee ba ca biir itam mu amaat bismillahi rahmaani rahim muy ñaar ya nga xam ne kon mooy mëtuli téeméer bi ñeent ca sóoratu namli kon daal nañ ci gën a defaate gëstu rek boroom xam-xam yi luñ ci gën a mën a am ci leer rek moom daara ji moom yàlla danoo defal tawfiix moom ñun ñëpp man bopp am dongalaa boo xam ne bii moom bëgg naa ku may lool ku ma ci dolli lool itam ci wàllu xam-xam gi ak liggéey bi ak fànn gu mën a doon rek kon nañ ci doole defal tawfiix te boroom xam-xam yi ñu ci gën a xam ci lu gën a yaatu rek ñu gën ñu ci jàppale gën ñu ci taxawu ñuy sant sëriñ bi tam bu baax a baax ci laaj yu am solo yi nga xam ni wax dëgg yàlla mu ngi koy tàbbal ndax ab soñu lay doon ci ñun te it dañuy yokk ak góorgóorlu bu baax a baax ba fi ñu doon jaar ci wàll yooyu ñu ci mën di gën a góorgóorlu li ci fàttalikuwaat waaye tam di gën a gëstuwaat bu baax a baax kon yàlla na yàlla defal tawfiq di jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen laaj ci topp Moustapha caw moo ko fi yónnee sëñ Moustapha ñoo lay ziar bu baax a baax di rafetlu kàdd yu baax waaye tamit di wax amin ci ñaan yi yal na yàlla nangu ñaan te boole ñu ko ñun ñëpp barke Cheikhul Khadim waaw fii moom daara la joo xam na ji sunu mbégte la lool am nañ ci kontante lool ndax dañ ci yokkoo bu baax a baax a baax waaye tamit dañuy am mbégte ci lool gis suñuy mbokk suñuy kilifa suñuy mag suñuy rakk suñuy nijaay suñuy wëllëre suñuy tànt suñuy yaay suñuy soxna yépp ndeysaan bokk ci liggéey bu mel nii euh, bëgg nañ ko lool am nañ ci kontante lool ndax danoo leer nañ ñu ne lu baax la tawfiix la ndax liggéeyal Xaadimu Rasuul bu ko defee nin ko yéene suñu bopp de lan ko yéene ñépp te bu nu sañan liggéey bii groupe bi dina am bépp fànn bépp lépp loo xam ne li lu koy gën a tasaare la rek lu koy gën a xamal nit ñi ba ñu mën cee jàpp participer ci dugg ci liggéey bu baax a baax ndax képp ko xam ne kii doon nga taalibe ab jullit nga doon nga taalibe boo xamee dëgg-dëgg secret liggéey bi maanaam dinga ci dugg bokk ci ndax loolu moom taw féexi kese kese kese la loolu lu ñu mën a am ci ay jumtuwaay yi nga xam ni mooy dëppook jamono rek ci wàllu luy tasaare ay wax ak i jëf di ko wone ci ay jëmm di ko wone ci ay kàddu eh, day jàpp na liggéey bi lool tey lu mu gën a yaatu rek tuyaa ba ji di gën di bari tawfeex yi di di ci gën a bari kon yal na yàlla doola defal tawfeex bu baax a baax tey eh, ñu ci woo rek mbokki taalibe yépp rek ñu ñëw bokk ci liggéey bi jàpp ci dugg ci biir nekk ci te xam ne ku ci dugg rek maanaam la nga doon liggéeyal sëñ bi maanaam xamal ne dafa yokkuwaat bu baax a baax a baax kon sëñ Moustapha Thiaw dafay laaj hal yajuuzu xiraatu suuratayni baadal faatihati day laaj ne ndax dagan na ndax may nañ kiy julli buy julli nga xam ne dañ ne boo julli rakkaa yu njëkk yi muy ñaari dañ ca war a jàng faatiha ak aw saar wala ay aaye moom mu ne ndax may nañu kiy julli nag bu jàngee faatiha ci rakkaa yooyu ba pare faatiha ji mu jàng yaari saar ndax ne ne moom day def su taree faatiha jàng saaru gàtt maanaam dafay mel ni daal ndeysaan ak xiram da koy yóbbu ci day xaw a xeet xam naa du xeeb sax waaye ak xërte la ci gàttaay bi daal mu ne kon naa jàngat beneen saar teg ko ca waaw loolu dañ ko naan laa xaraja alal musalli an yaqraa suuratayni aw thalathan sawaun kaana imaaman aw mamuman aw munfaridan ne waaw loolu kay lu ñu may jullikat bi ta waaw loolu lu ñu may la loolu lu mën a nekk la maanaam may nañu kiy julli bu jàngee faatiha mu jàng yeneeni saar yoo xam ne bu ko defee mu jàng yaari saar ba ca may nañ ko sax mu ko neex mu jàng yetti saar nee nag loolu ki ñu koy may mooy moo xam kay jiite la may nañ ko muy jànge noonu waaye itam ka jiite may nañ ko muy jànge waaye bu dee da ànd yow dong di julli itam may nañ la nga def noonu kon xam naa am na laaj boo xam ne bi àggaguñ ci muy soxna mbenn mbay xam naa dinañ àgg ci moom incha allahu moom itam xam naa bu digloo tontu bii may tontu fii rek mook benn laaj bi daal ñoo ko bokkule kon ñooy bokk li nga xam ne lii mooy tontu bi kon daal dañ leen dina xamal ne euh, loolu lu ñu mën a nekk la waaw bu ko defee dafay wax sax soxna wa yafalu zalika al imaamu ahyaanan li bayaanil jawaaz wa duna an yutila alal musallina nee na sax loolu ki nga xam ne kii dafay jiite dañuy bëgg ci moom suy jiite léeg-léeg maanaam mu def noonu maanaam mu jàng faatiha teg ca yaari saar ndax leeral ne ñeneen ñi daal di cay xamane loolu luñ may la ki nga xam ne kii dey julli waaye ne bu dee imam la su koy def itam na fexe ba maanaam bu doon lu gudd loo xam ne lii day yàgg ba xaw a métti ca jullikat yi dana daal bu fekkee imam la may nañ ko mu di ko def léeg-léeg ngir di leeral ne loolu mën naa nekk waaye kon day fexe mu nekk saar yoo xam ne yu du gudd lool kama yajuuzu haza fil faridati wan naafilati dana itam lii mu wax nii maanaam lii ñu ko may nii muy jàng ñaari saar ginnaaw faatiha ne ne bu dee julli farata la may nañu la nga def ko waaye bu dee jullik eh, naafile itam may nañu la nga def ko li ñu tegtaloo ci wax ji tamit mooy lii ma bëgg a wax nii mu di ab xadis mu ne waxat sabata an nabi sallallahu alayhi wa sallam xiraatu suuratayni baada alfatihati fi kathirin min alsalawaati ne ne sax na leer naññ ñu jële ci yonente bi sallallahu alayhi ne yonente bi daana jàng ñaari saar ginnaaw faatiha ñu seetlu mu def ko ci ay julli yu baree bari yoo xam ne moom sallallahu alayhi wa moo ko doon jiite waqad jaa fil ahadisi sahihaati dikruha wa bayaanuha nee itam lii bu ñu xool gis nañ ci ay xadis yu bare bari yoo xam ne yu wér la yoo xam ne yi wax nañ ne euh, may nañu guy julli mu jàng ginnaaw faatiha ñaari saar yoo xam ne ay xaddis yoo xam ne yi yu wér la yoo xam ne yi wax na ko waaye itam leeral na ko kon daal loolu lu ñu may la ki nga xam ne kii buy julli mën na ko def beneen laajam bi ci toppat moom booba tey day laaj xiraatu suuratin baadal faatihati fi rakaatil axirati beneen laaj bi ci toppaat yi mu jóge ci suñ Moustapha ba tey dafay laajaat ne ndax ba tey dinañ may kiy julli nag buñ demee ba ca rakkaayu mujj ya mu jàng faatiha aku saar masala bu dee julli yi nga xam ne yi ñeenti rakkaa la dañ la na ñaari rakka yu jëkk yi jàng ca faatiha aku saar ñaari rakka yu mujj yi nga jàng ca faatiha rek bu dee julli ñett rakkaa la comme timis ñaari rakka yu jëkk yi nga jàng ci faatiha ku saar rakka bu mujj ba nga jàng ca faatiha kese léegi nag yooyu lay laaj ne ndax nit ki bu dee julli sañ na rakka yu mujj yooyu nga xam ni dañ ne nañ ci jàng faatiha rek mu jàng ci aw saar dañ ko ci tontu mooy dañ ko nan as sunnatu hiya xiraatul faatihati faqat thalithati warrabiati min arrubaayati haza huwa al afdal ne nañ foofu moom ne lii liy sunna daal ci wàll googu mooy boo dee julli julli ñeenti rakka ñaari rakka yu mujjee jàngal faatiha kese bu dee julli ñetti rakka la rakka bu mujj ba nga jàng ca faatiha kese te bañ ca jàngaale aw saar ne nañ loolu daal mooy sunna te it mooy li nga xam ne lii mooy li gën ndax ne na li anna nabiya sallallahu alayhi wa kaana yaqra'u fil axiratayni bil fatihati faqat ndax ne ne buñ dee seet Seydina Muhammad di roy ci moom moom li mu doon def mooy rakkaa yooyu nga xam ni day mujj maanaam fatiha dong la ca doon jàng wa jaa an abi bikrin annahu kaana yaqra'u fi rakaati athalisati min almaghribi bi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab na min ladunka rahmatan innaka antal wahhab su ko defee am nañ ci ab seetlu boo xam ne bii rot na ñu jàng ko ñu jële ko ci saxaab yi bu mag muy Seydina Abubakar daa ne nañu gis nañ ne moom eh, bu daa julli julli timis bu demee ba ca rakkaa bu mujj ba muy ñetteelu rakkaa su jàngee faatiha ba pare dina ci jàng aay bi ab aaya la wax sax nag waaye waxut aw saar muy aay bi lañ seetlu naan daal seetloon ne daal abu Aboubacar moom daana ko jàng ci ginnaaw jullik timis maanaam ci euh, rakkaab ñetteel ba daana ko ca jàng ginnaaw bu jàngee fatiha ba noppi mooy aay bi mooy rabbana la tusir qulubana baada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab kon daal la gën daal jëm mooy sunna euh, ñaari rakkaa yu mujj yooyu benn rakkaa mujj boobu nu di ca jàng fatiha rek ngir ne nañ loolu mooy li xam ne lii mooy sunna wasalaamaaleykum wa rahmatullah laaj yi ci topp soxna soxna mbenn mbay moo ñu ko fi yónnee soxna mbenn mbay sama jarbaat sama jigéen sama doomu nday xam naa mën naa ne sax sama yaay ci gën ak wàlla danoo jaxasoo loolu wax dëgg yàlla ci mbokk ñoo ngi koy ziar bu baax soxna si di ko ndokkeel bu baax itam di ko dalal ci liggéey bu sell bi nga xam ne bii dugg na ci ci dégg maanaam lenn ci liggéey bu ci wàllu liggéey bi rek euh, loolu nekk ci xolam mu bëgg ko mu daal di sàkku ñu tàbbal ko ci liggéey bi wax dëgg yàlla soxna la su baax euh, mbokk la itam sunu mbokk la ci fànn yépp wax dëgg yàlla doon ku baax doon ku bëgg lu baax itam ñu xam ko ci moom ci ay waxam ak i jëfam ba am Pastef tax gis nga euh, di topp lu baax rek ak di ko bëgg tax na bi mu amee yenn ti wax yoo xam ne yi wala yenn ti waxtaan yoo xam ni dégg na ko ci liggéey bi rek daa laaj ban group la ñu ne ko sunu group bi la mu daal di joxe numéroom ñu daal di ko ci tàbbal kon loolu itam ab soñño la ci ñun ñëpp ab soñño la ci itam ci soxna yi ci xam ne moom lu baax moom góor ak jigéen ñoom ñëpp ñoo ca yem ku mu nan doon ñun danoo war a fexe jigéen ñi duñ ñu raw ci wàll boobu waaye jigéen ñi itam danoo fexee dañoo war a fexe ñun góor ñi duñ leen raw ci wàll googu ndax innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat ba ca aay ba moom euh, góor waru koo defa mënal jigéen waaye jigéen itam waru koo mënal góor ñun ñëpp ñoo ca yem kon yàlla na yàlla loolee defal tawfiix ba liggéeyam lislaam bi nga xam ne bii ak jaamu yàlla la ñu saxu ko ñu góor ñi ak jigéen ñi ñun ñëpp ñu laxasaayu di ko bokk di ci laayante biir di ci leeralante euh, képp koo xam ne kii am nga loo xam ne lii lu la lënt ci sa diine la nga gaaral loole laajte ko ndax boo ko laajee ka nga ko laaj su ko xamee dala caa war a dimbali mën na la caa dimili su ko xamat it mën na laa tegtal ku ko xam mu dimbali la ca wala mu def ab gëstu ba xam ko dimbali la ca te loolu mooy li nga xam ne li mooy woy wàllu jullit mooy wàllu taalibe ndax sunu kilifa yi ku mel ne Seexul Xadim dañuy wax rek ne mu kallaf bi moom wërta def lenn loo xam ne lii moom lay def ci ay defam maanaam lu mu mën a doon ak la la wax ci say def yow yow jullit bi lu dul ni da nga xam la nga xam ne lii moom la ci charia atte nga dog koo wax wala nga dog koo def kon ak julit mënta ñàkk di gëstu diineem waaye dem da ca def lu ay leer leerlu jéem sa diine ji da laa teg ne looy wax na nga xam lu ci charia atte ba pare wala looy def na nga xam lu ci charia atte ba pare ba sax fooy dem sax béréb bu mën a doon na xool béréb boobee fan la ca charia taxawee nga da ko xool noo koy demee kon ñoo ngi dollee sant bu baax a baax di kontaan bu baax a baax ci jëmm yu mel ni nga xam ne dañuy wone seen xol ci sell ga ak leeraange ga ak bëgg lu baax nga tax xam ne nag loolu dong nag moo ni jëriñ àdduna ak alaxira comme la ko waxoon ca tàmbale wax ji rek ña nekk bar sax lañ gën a bëgg tey ji mooy ñu dellusiwaateen àdduna ak ak roox ba liggéeyal fi lislaam loo xam ne buñ delluwaatee loole da leen di jëriñ kon loolu ab soññ ci ñun ñii fi desandi ci lépp luñ mën a góor góor lu ci li baax rek suñuy guddi ak suñu bëccëg loola doyut ñu gën cee góor góorgóorlu gën koo jàpp kon soxna si ñaari laajam yi bi benn bi mooy comme bee bu Moustapha laajal rek laaj ba dafa duggante waaye beneen bi ci desit moom soxna si dafay laaj walla julli ñaari rakkaay fajar maanaam waxtoom ne ne léegi day laaj ñaari rakkaay fajar yooyu bu ñu noddee noddab yeete bi di ko mën a julli wala da ngay xaar ba ñu noddu salaatu xayrun mina nawmi nga dog koo julli kon dañ koy wax ne ko yaari waxtu yooyu yëpp boo ko ci julli baax na bu ñu noddee nodd ak yeete gi su la neexee mën ngaa julli sa ñaari rakkaay fajar yooyu ndax foofu mooy fajar jot na te ñaari ay fajar la ñu wax mooy sunna si kon bu ñu noddee nodd ak yeete rek boo jógee waaj euh, ca na nga war a waajee maanaam mën nga koo julli waaye tam su la neexee mën ngaa xaar ba jullik suba gi muy farata ji bëgg a jot nga xam ne dañuy noddu daal di wax asalaatu xayrun mina naw ba noddu ga jeex léegi foofu itam bu ñu noddee mën ngaa xaar bañ noddu noddu googu nga julli ñaari rakk fajar yooyu muy sunna nga dog caa ñaari rakk yi nga xam ni mooy farata ji nga julli ko kon ñaari waxtu yooyu boo ko ci julli rek baax na yàlla na yàlla doole defal tawfiq beneen laaj bi ci topp sëñ Modou Dieng moo ko fi yónnee sëñ Modou ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di la ndokkeel moom itam mu bokk ci liggéey bi di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax moom day laaj miraasul axi shaqiq wal moom li fi laaj day nekk ci wàllu miraas mooy comme bu ñu déggee laaj bi daal mooy day laaj nit ki suufaatoo bàyyi fi koo xam ne kii ñoo bokk ndey ak bàyyi maanaam mu doon magam walla rakkam ak maamam ak koo xam ne kii nijaayam la léegi nan la miiras may demee su ko defee dañ ko naan euh, izan faradal jaddu axasal maala kullahu wa yaxusul baaxi isa kaana maahu du sihamin ne ne bu fekkee ni nit ki dafa faatu bàyyi fi maamam dong jenn maam dong dong la fi bàyyi ne maam jooju mooy moom alali waa jooju kooku faatu kon maam ja mooy jël alal jëpp bu fekkee ni maam ja dong nga fa nekk ci mbokk yi ko war a doon wala maam ji su fekkee ne am na ñeneen ñoo xam ne ñii des nañ fa ak moom te yiiruñu ko ba maam ji war a doon ne ne day xaar kon ñooñu ci am ay cër te fekk maam ji mën naa bokk ñoom buñ jëlee seeni cër la ca des maam ja dog koo jël kon maam mën naa doon nit ki ci su fekkee ni dafaa des moom dong ci ñi ko war na doon day jël alal ji yépp waaye tamit su fa ñeneen nekkee ñoo xam ne ñi yiiruñu ko ba maam mën a bokk ca miraas ma ñooñee dañuy jël seeni cër moom la ñuy jëkk génnee la ca des maam ja dog koo moom ci wàll bu dee maam ju góor mu ne wa isa eh, wal jaddatu assudus izan faradat aw kana maahu uxra tusharikuha nee na itam nee na itam nee itam bu dee maam ju jigéen la bu fa nekkee moom dong dong dong day jël alal jëmam itam déedéet bu dee maam ju jigéen la bu fa nekkee sudus lay am maanaam dañuy xaaj alal ji juróom benn xaaj jox ko benn xaaj ba su ko defee bu fekkee am nañ ñeneen yeneeni maam yu jigéen yu mu fa nekkal la maanaam dañuy bokk sudus boobu ba tey su ko defee nag eh, ni mu laaja laaj bi nii mooy eh, wa isa mata shaxsun an axin shaqiqin wa jaddin wa xaalin fal miraathu kal aati ne bu fekkee ni nit ki dafa faatu bàyyi fi magam jum bokkoon ndey bàyyi wala rakam ak maamam ju góor ak nijaay ne miraas mi nii lay demee lil jaddi nisfun walil axi nisfun wala xasa lil xaa xaali fi haazal miraas ne su boobaa euh, magam jooju wala rakkam jooju ñu bokkoon ndey ak bàyyi dañuy xaaj alal ji jox ko benn xaaj bi beneen xaaj bi ci des euh, ñu jox ko maam ji maanaam daal ñett ñi bu ñu fi desee muy maam ak euh, mag walla rakk ju mbokk ndey ak baay ak nijaay maam ji ak mag ji ñooy séddoo alal ji ci digg bi ku nekk da ngay am ab xaaj waaye su boobaa nijaayam ji moom du bokk ci miraas mi su ko defee nag miraasam wàllu maam moom dafa xaw a doy waar yéeme lool ba miraaskat yi sax dañ koy xaw di moytu bu baax a baax ndax ne ne lam yarid fi xukmil jaddi maal ixwati aayatun quraaniyatun wala xadiisun sharifun dina nag masalaat boo xam ne bii maam dafay nekk ak des fa mbokki waa ji maanaam ay mbokkam ay magam wala ay rakam ñu loolu aayab alxuraan wàccu ci ab xadis itam rotu ci ne ne walizalika kasuratil ijtihaadu wa tashaabatil madaahibu fi xukmihi loolu tax ne ne masala bu mel nii nga xam ne maam da caa nekk nekk fa ak mag yaag rek yaa ne ne boroom xam-xam dañ ci def ak farlu ak góorgóorlu gu baax a baax goo xam ne gii dañoo def seen gëstu bopp di xool nan la miraas moomu di war a demee maanaam la ñuy wax al ijtihaad mooy góorgóorlu farlu di jéem a teg ay atte yoo xam ne xañ na da ngay xool noo ko mën a làngale ci alxuraan ak sunna waaye nee na la masala boo xam ne maam la ca ne daal ak mag yi ak rak yi daal alxuraan waxu ci xaddis waxu ci looloo tax boroom xam-xam yi seen ak ijtihaad rek lañ ca def moo tax ne ne masaahib yi dañ caa bànqaasu lool maanaam dañ caa wuutee ci atteeb miraas bu mel noonu mu ne wa kaana saxaabatu yatawaqawna alxukma fi tawrisihi xataa xaala omar bnul xataab ajraukum ala xismatil jaddi ajraukum ala naar ne ne tax saxaaba yi sax ñoom dañu doon moytu lool miraasam maam miraas moo xam ne bi ne maam da caa bokk moom dañ ko doon moytu lool ba tax na Euh, Seydina Omar sax wax ca waxam ju si ji ne képp koo xam ne kii moo leen gën a ñeme miraasam maam rek na ngeen xam ne moo leen gën a ñeme sawra looloo taxan ñoom dañ ko doon moytu bu baax a baax su ko defee wal xaalu laysa saaxiba fardi wala taasib fala miraasa lahu fi hazal janib ne na gis nga kon bu dee lu wel lu mel ni nijaay la moom maanaam moom lu ko génne ci miraas dafa yomb lool ndax daanaka dafa ñi nga xam ne ñi ñooy borom farata ya ci ñi ko war a doon suñ fa nee bu ca kenn nekkee rek moom nijaay du mën a bokk ca mooma miraas ne ne li annahum min zawil arham wa yushtaratu li tawrisi zawil arham adamu wujudi saaxibi fardin aw taasirin ne maanaam nijaay dafa bokk ci mbokk yi nga xam ne yi moom bu ñuy miraas ñoom dañuy dañuy xool bu fekkee ni ñaar yi kenn ngi ci miraas mi rek moom nijaay du mën a bokk mooy bu saaxibu fardin mooy miraas boo ko xaajee dafa am ñoo xam ne ñii faw dañuy war a bokk ci miraas mi nga xam ne sinab cër farata ja bu ca kenn ci ñooy bokkee nijaay dul bokk wala beneen xaaju miraas bi mooy ñoo xam ne ñii taasib la taasib mooy ñoo xam ne ñi dañuy xaar di dañuy toog di xaar lu des ñu jël ko wala bu ñu fa desee ñoom dong maanaam ñooy moom alal ji yëpp leneen ñaari ñi nag ku bokk ci miraas mi su boobaa eh, moom nijaay moom du mën a eh, don kon dañu naa mataa yarisul xaal kon nijaay kan kañ la mën a doon mu ne in kaana lil mayti xaalun waaxidun wa xaalatun waaxidatun min al abawayni bi maanaa anna kullan minhuma axawaani shaqiqaani li ummil mayti yakunul miraasu lahuma bis sawiyati ay li kullin minhuma nisful miraas wa man xaala bi tafaaduli ne nijaay daal bu fekkee ne ki faatu dafa am benn nijaay ak benn tànta maanaam faatu na nijaayam rekk a fi nekk ak tàntaam maanaam koo xam ne ki mook ku jigéen koo xam ne ki moo ñoo bokk nekk ba yoo xam mooy bu dee xaal mooy ku góor ku bokk ak ndey ji yaayam ndey ak baay bu dee tànta la mooy xaalatu mooy ki bokk ak yaayam ndey ak baay ne ñoom ñaar ñoo ñu buñ fi desee te fekk na nag ki faatu ñoom ñi dañoo bokk ak yaayam ndey ak baay lay wax ne ñoom ñaar ñooy doon lu alal ja te ñoo ca yem góor ak jigéen la waaye dañ koy séddoo ci digg ba maanaam ku nekk da jël ab xaaj waaye itam am na ci ñeneen fuqaha yi ñu wax ne bu ñu fi desee ñoom ñaar jéem góor ak jigéen la dañu koy def ñetti xaaj góor jël ñaari xaaj gi maanaam nijaay ji tànte ji jël benn xaaj bi kon daal loolu mooy aju ci li jëm ci wàllu laaju ndiira sam boobu xam na ñu gën cee gën a def gëstu bu baax a baax beneen laaj bi ci topp sëñ Alioune Badara Ndiaye oustaz moo ko fi yónnee oustaz ñoo lay ziar bu baax a baax di la ndokkeel ci teewoo gi bëgg xam-xam gi bëgg lu baax gi yal na yàlla loola defal tawfiix bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa dafa laaj moom ne jullik ajjuma day laaj ndax farata la wala sunna la ak moom jullik ajjuma daal ak gog tisbaar nan lañ demee dëgg-dëgg ci seen wàllu ñoom ñaar su ko defee dañ ko naan salaatul jumaati fardun ala al ayaan liman laa usra lahum wa laysat sunnatan jullig ajjuma la waaye du sunna farata ju dëgër la sax ju dëgër a dëgër joo xam ne ji bu amee charte ya eh, ku amul ngànt te bokk ca charte yi rek da ko war a julli ji comme ni nga war a jullee tisbaar maanaam fardu aynin la farata la joo xam ne ji farataay jëmm la kenn mënu koo defal kenn lu dul nit da ngaa ngant bu ko defee nekku sunna waaye farata la nga xam ne moo remplacé tisbaar te tisbaar farata la wa taqumu maqaama salawaatul xams min annaahiyatil fardiya comme ni nga xam ne nii juróomi julli yi muy tisbaar takkusaan timis gee suba farata lañu farata lañu noonu la salaatul jumaat yi nekkee farata ci bésub ajjuma ci dëkk boo xam ne bii charte ya am na ca charte ajjuma ya su ko defee li annaha naibatun ani zuhri yowmal jumaati wa tujzihu ani zuhri na ne li tax ñuy gën a wéral ne farata la mooy moo remplacé jullit tisbaar bésub ajjuma te it maanaam fu fu charte ya mate ca dëkk maanaam moom aju ajuma julli ajuma moo war a taxaw waaye dañuy bàyyi tisbaar julli ajjuma nga na baynahuma furuuxun minha nee na nag booy xool li mu wax naan daraja julli tisbaar ak daraja julli ajjuma nan la demee moom daanaka dañuy dañuy def tawazun ni ñu koy mën a waxe mooy dañuy peesante maanaam ñoom ñëpp ami daraja daanaka benn lañu rek ne nag li ñu tàqalikoo rek mooy ku ci nekk am nga sa fànnuk bopp ne na bokk na ca li ñuy xëccoo ñoom ñaar muy aljumaatu la tanaaqidu illa bi jamaatin ne na julli ajjuma eh, dee su ko mën a julli lu dul ni dafa doon mbooloo moo xam ne mii moom lañ chartal ne dañ koy mat ñu dog a mën a julli jullik ajjuma googu kon jullik ajjuma bu doonul mbooloo deesu ko julli maanaam benn kenn du beru di julli julli àjjuma wala ñaar wala yu faalu day doon mbooloo moo xam ne daal charte la cay doon te ne bu dee julli tisbaar la wa zuhru euh, tasixu min al waahidi wal jamaati te ne bu dee tisbaar la moom day jël palaasam moom kenn mën na koo julli waaye itam mbooloo mën na koo julli gis nga kon mu ne la àjjuma moom dafa am daraja yi dees ko mën a julli lu du ci mbooloo waaye tisbaar yi dafa am darajaay mbooloo mën na koo julli mën nañ ko julli kenn kenn bokk na ca aljumaatu laa tuqaamu illaa fil xuraa wal amsaar bokk na ci darajaay ajjuma moom ajjuma darajaam dafa àgg ci lu du dafa àgg ci duñ ko def maanaam duñ ko jullee lu du ci ab dëkk bu ndaw wala dëkk bu mag boo xam ne bii charte ya am daje na fa waaye moom julli tisbaar ne ne béréb bu mu mën a doon rek darajaam moo tollu ci bërëb bu mu mën a doon rek bu la fa tisbaar jotee mën nga ko faa jullee te ajjuma daa am fu ñu ko jullee muy ci dëkk bu ndaw wala bu mag boo xam ne bii sarfi ajjuma ya am na fa aljumaatu laa tuqaamu fi safar ne bokk na ci darajay jullik ajjuma eh, bu fekkee ne yow da ngay tukki yow jullik ajjuma am nga ngàntal doo ko def wasalaatu yi tuqaamu fi safari wal xadar te bu dee jullik tisbaar la moom boo dee tukkeeg boo tukkiwut moo ci yam saa bu jotee danga ko war a julli salaatul jumaati laa tuqdaa isa faata waxtuha dara bokk na ci darajay jullik ajjuma moom jullik ajjuma ku mu raw doo ko fay desul fay jullik ajjuma bu la rawee wa salaatu zuri tuqdaa te darajay jullik tisbaar mooy ku mu raw itam da ko war a fay maanaam des ko war a fay aljumaatu la talzamu an nisaa gis nga bokk na ci darajay ajjuma maanaam warul jigéen ña jigéen ñi jullik ajjuma waru leen wa salaatu zuhri talzamu nisaa war rijaal te darajay tisbaar dafa àgg ci euh, dafa war góor ña war jigéen ña aljumaatu tu sannul xiraatu fiha jëhran bu dee julli ajjuma bokk na ci ay darajaam dañuy sunnal maanaam boo ca jàng nga biral ko jàng ca kaw wa zuhru tusannu fiha al te bu dee julli tisbaar la dara jaam day toll ci maanaam buñ cay jàng dañu koy yàllu kon lii lenn la ci ay tawazun ay misaan yoo xam ne diggante eh, al muwazanatu bayna al jumaati eh, wa zuhri daal eh, am jot nañ cee am lii waaye itam terewut it am des na yeneen yu bari yoo xam ne yi ñoom ñaar dañ ko seex di ko xëccoo ku nekk la nga ci am ci ay daraja nga am ko ci moom jullik àjjuma ak jullik tisbaar Alioune Badara Ndiaye oustaz beneen laajam bi ci topp te mooy bi lu bi mujj ci fatwa bi tey mooy day laaj al azarul mubihatu li taxallufi day laaj yan ngànt la nag nit ki di am ba tax maanaam jullik àjjuma wàcc ko maanaam mu bañ a julli ji àjjuma ngànt yi dañ ne bokk na ca al mataru shadidu jiddan bu dee taw taw bu méttee métti bu tara tar boo xam ne bii boo génnee man loraange mën na ca am ne loolu bokk na ci ngànt yi tax nit ki mën a bañ a julli ji ajjuma alwaxlul kathiru bu fekkee ne dafa taw maanaam te yow yoon wi ngay jaar am ban ban bu tooy boobu bu bari boo xam ne boo cay dox mën nay summi say dàll walla ngay say tànk di nóor ca biir ba doo mën a dox ban boobu su nekkee ci yoon yoonoo ngay jaar loolu ngantal bañ a julli ji àjjuma la al mujazzim al mujazzam allazi tadur raihatuhu bil jamaati koo xam ne ki dafa yor feebar boo xam ne bii lu mel ni ay góom la yoo xam ne dafa ànd ak xet xet goo xam ne gi neexut a dindi nga xam ne buy dem ci àjjuma day yóbbaale xet googa te xet googu bu demee day lor ci likat yenn ne loolu boo amee ngant la ngir bañ a julli ji àjjuma almaradu nit ki su feebaree feebar bu métti boo xam ne bii mënta dox dem ci ajjuma ja feebar boobu ngant la at tamridu nit ki su yoree ku feebar koo xam ne kii mbokkam la muy baayam waajuram mu góor wala jigéen walla mag wala rakk wala soxna wala ñu mel noonu daal ku feebar la ko xam ne ki moom mii rek moo ko mën a yor di ko toppatoo ci jamono yooyu bu julli ajjuma jotee du may nañ ko mu am ngàntal bañ a julli ji ajjuma te lijjanti nekk ci ku feebar kooku alxawfu ala nafsi ne ne bu fekkee ni nit ki dafay ragal ci boppam itam ne buy julli ji daal euh, day ragal min darbi zalimin ne am na ab tooñkat boo xam ne bii moo ko ëpp doole te suy julli ji dina ko kar ca yoon wa dóor ko aw xab si wala mu ragal ne am na koo xam ne kii su génnee dem ne day julli ji rek dina ko jàpp dem tëji ko waa axsimaal yi wala koo xam ne kii euh, nee na leer na ko ne bu génnee dem di julli ji dina am ko ko kar ca yoon wa jël alalam wala ñu jël alalam ci ginnaaw buy julli ji yii yëpp itam bu mu ci mën a doon rek ngant la loo xam ne bii su dalee nit ki mën naa bañ a julli ji ajjuma al mu'sir allazi yaxaafu an yaxbisahu xarimahu koo xam ne kii dafa am bor te mënagu koo fay te ragal na ne su génnee dem di julli ji àjjuma borom borom ma ngi koy xaar ca yoon wa di ko indil ay jafe-jafe nga ne kooku dem julli ji al ama lasi gumba ku dul gis koo xam ne kii amul ko ommat te mënta yóbbu boppam ca àjjuma ca àjjuma ca jumaa ja ne ne kooku itam am na ngantal bañ a julli ji àjjuma amma ida kaana lahu xaaidun mu yahtadiya bi nafsihi fala yajuusu taxalluf ne nag gumba googu girit gis su fekkee ni am na ku ko mën a ommat yóbbu ko ca jumaa ja kon ngànt ga day dañ wala moom gumba gi ci boppam mën naa yóbbu boppam jumaa ja kon ngànt gi day dañ kon daal lii lenn la ci ay ngànt yoo xam ne yi su ko nit ki amee bu mu ci mën a am rek benn bu mu ci mën a am rek nag loola ngant ngir mu mën a bañ a julli ji ajjuma kon yal nañu yàlla defal tawfiq bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ذاك يودا وهو ذاك يودا لا وهو يودا فتاوى